wa rahmatullahi wa taala barakatu déwéniti maar yaasin may sa biiga may toog léegi sama kër yal na yàlla guddal sa fan seetaan naa vidéo yëpp bi ma toogee ci saal bi may leen ma tuuti rek bi ma toogee ci sama saal ma toog di seetaan ay vidéo dëgg la li ma indi ba ma ni bëri jug taal sama oto tayatuma ko ndax nag yàlla dañoo booleeg yow yàlla jiital la bi la yàlla jiitalee ñun ñu nekk ci sa ginnaaw nga taal lamp yépp fayoo dara boo ko weddee sëppul fi xool li gaare fi segam ñëpp a mën a wax ñun ñu ànd ak yow te ñuy liggéeyoon ak yow bu nu toogee doonu baadoo la lii may nii lii moo ma indi man la Cheikh Béthio waxoon Serigne Saliou laa lay wax te chaque jour wax la ko Cheikh Béthio daa toog Serigne Saliou ni ko Mbàkke xoolal ni ma def tamay géwal tama noonu woyaa nii baa ma defi leneen déedéet Serigne Saliou jàpp Cheikh Béthio jun def ko ni ko def yow xoolal ni ma def koor da daan jot ma toog ci buntu kër gi ca taliba oto bu romb ma xool nii xool kan la boo nee diwlu ma naan lay wokk pour taxaw nga may mag junni wala ñaar téeméer yu ma ndogoo déedéet xam yi ma ko korité léegi ñaar fukki junni juróom laa ko jëndee kuy xalaat tabax si doo ko rey ma toog barki de moo njaay ci kër gi ñu woo ma téléphone ni ma waale dugal na leen xaalis dem leen ngeen jëli ji ko ma ñëw mu doon koppal yoo xam ni ba ñu ko jëlee ku ci nekk lam la mat faj nga ca say soxla baa doona du gërëm waa ak nit yàlla dafa jël ay doomu aadama boole kook ay nit koku di jël ay teranga di len ko jox bu len ko koku di joxe nak bu doon metti rek la am tëgg ak um way ak um fecc ñaata nit dafa meuna a ak ñaata nit dafa meuna fecc du lolu ku ko weddi bul jesu bu bu ñew ñun ñu dem duggu ba xam bi fa gisee nit kon yow a yow mi mu don nak ba nga jitu ñun ñu top sa ginaaw nan lay wax jeuf ayul dedet barki serigne Bamba ayul man fi ma jëlee ak ni ma def ak fa ma yóbbu bi ma ki barki moo Njaay damay dem Tiwaawan ci koor gi bi ñu woore ba moom fukki fan laay dem siyaare sama yaay man ma taal ñaari oto dar ma am ko ma benn euh, ex titanium kiling titan mi ngi nii gaare maa ko dawal sama bas am benn jib bu ma dar muy sama xarit ñu dugg ba Tiwaawan ci osan bi ma làmb sam di génne pour war a euh, indil sama yaay ndogoom kooku ni ma bul fay lam fa jaay vidéo yi gis yónnee naa ko Sëriñ Saliou Mbacke ak yàlla ma duggaat sama kër man ko nga ni mun ma waalee tax ma def ko ma wéeru ci miir bi ma ne xoolal li muy def te nekku fi boo génnee rek mu boole ak ay yoo xam ne foo taxaw ñu teral la foo taxaw ñu dimbali la te ginnaaw yàlla yonent bi sama papa nee na wërsëgu jàmbur ko cay woyaasi war ngaa gërëm borom. voilà ma xamal la benn affaire. waaw. dañuy ànd maag moom nag. ah mais mosuma lu mu def. jëlal lii waay. maanaam c'est très très important. jëlal sama musicien la. Ah. moom ma mag dëgg la ah, ah. mais jox na ma cër cër boo xamante ne musuma bëgg lu ma def lu mu def xaalis su ma su ma ko njëkkee yëg seen sax bu yëg day palpati cest à jox na ma cër boo xamante ne bi mu ñëwee yàqul dafa dolli. ndeysaan ma seetal ko dafa dolli. jox na ma cër bu mucc ayib. du ko rëcc benn yoon la. waaw te. ñëw Ramadan hasard damay ñëw dem ci ñoom caat boo fekk cër boobu tey yoon la ma xamal sénégalais yi chaque fois da nga yor yaay wax chaque fois yor yaay wax. wallaay day yor yaay wax ak yow rek hmm. mais barki Serigne Touba Mbacké malal na ko. barki Serigne Touba hmm. barki Cheikh Khadim ndax cër bi ma jox. laaj Ramadan ñëpp mën nañu am hmm. sànni waxtaan woon ma wàññi dara jéem maa bëgg da ngaa mën li nga def jox ma cër boo xamante ni jox ko nit nangul ko yomb donc bala koy seetal ku la bëgg laa xaalis lii bu la ko sa patron waxee lii ku ne ñëw na fi wax bi te ñi wax bari gu mu la tontu na la ni ni nga ak la du ab dof du ab dof de lu def noo ko def ak foo ko defee xam na lii nga wax léegi jikkoy borom barke lay mhm. dangaa daw ba dugg di teral sa mooy la bul fay mu fay nga ne ko ci barkeb kan lu ko tax nga def lii mu ne la wàññi mhm. loolu mooy xol yu gisee la yàlla mhm. lii nga def nag wax nga ko léegi ab dof du gërëm baadoola du gërëm ku iñaan du dof loo ko defal xamu ko ndax daa dof xamut li nga def xamut too ko def bo iñane sa xol a koy téye doo ko mën a wax baadoola loo ko defal rem mun a yow do baadoo do dof do ko iñane yalla yalla ko guddal sa fat yalla na ko fekkal ay jiw yu bari su barke sa fan jërëjëf alors sama sant ci ñaari kàddu waaw jërëjëf la ndax ko la acca maro wax ju baax la bu ma ko fekkee ne fi toog di la communicateur du peuple bañ ci wax day mel maamu ki ñaan tamit ci xaalis. te xaalis di ku baax ma yéene ko jàmm nag. lii ngay def nii laa seetaan benn vidéo nga nekk Amérique ànd ak waa ji. di wax lu baax wala yaskurullah sa laa yaskurullah. ku gërëmul a doo gërëm yàlla. a in shakartu la azidannakum da ngay sant rek yàlla kon. boo santul yàlla du doon li ba noppi weddi nga te safara. li ngay def yow di koy jëntaakul la man moo la gisee sama yaram day ak gor bu la dimbali teral la da ngay sant xaalisee moroom ma ne bi gin di tëgg te fii ma toog di wax ak yow borom joxul dépense duñ añ xam naa li may wax am na ñoo xam ne seeni oto boo ci deful essence duñ bougé waaw loolu ci tax nga man ko ñëw ci moom ni ko jërëjëf lu mu la wàññi wàññu la dara lii nga def nag dafa yow alaaji maaraam léegi ab dox du sant baadoolo lu sant. ku iñaan ku iñaan lu sant. wallaay dëgg la ndax day jàpp am lu wàññeeku ci moom am leneen lu yokk ca kam nit ak lu koy wàññi du mbindeef yàlla. bàyyi gaal mi daa solo. ñetti fan samay sët moom lay li bàyyi gaal wax laay dagg dugal. te bi mu koy. dëgg la waaw. dem nag mhm. ku ko yoroon jox ko sa man bu ma ko yoroon tey sama doom dina faraat dina laa ko jox léegi mhm. mu raw ñëpp mhm. waaye yàlla ak xolam mbir mi yàlla gannaaw liggéey nga ak sa xol kon nag dañu lay sant ci teraanga ji parce que lii nag teraanga la teraanga du alal kese wax ju baax teraanga la te daw nga minimum ñeent jàpp juróomi kilomètre lu baax kon daaw la ko delloo ma def moo ma nga wax nga lu baax li mu def waaw nee nga da mu ñëw sa ginnaaw jox la ay tiis sa xol di sedd ci loolu waaye man tamit damaa toog bërki démb Mari Ndiaye woo ma na ma foo nekk ma ne ko Tapha ni kër waale mu ñëw indi mbuus na ma amaroo moo la waaw mais gars yi bu leen bu leen bu leen lépp takka. lépp takka. non lépp takka. parce que Serigne Saliou Mbacke war naa wax. non dama ne woon war naa wax. mais damel laa ko fréquenté ba tey jii. te benn jikko bi amoon la am ba tey. ku ne xam na ne affaire terre boo ko météo bokkul teel a leen boole weer. wax dëgg yëpp wiiri wiiri wiiri xam nga lan la mooy da ngaa baax. xool ma. neex naa de su ma mën naa wax nga reetaan mais dama ne barki Serigne Saliou Mbacke taw daaw daaw ñëpp la wax mais wax na ne mais yow da ngaa baax mais bu nit yu bokkul jikko ngay ne te boole mille personnes yoo xamante ni bokk na jikko nga dajale leen ñëpp si yow léew yow ngay ne ku nam ngay dafa ñëw ah ñëpp réew mi bu juddoo nekk xale wut ko xool wut ko xool kenn yow naw la nga yow nga dara non dama ne am nga jom am nga ngor am nga fulla am nga ambition koo àndal da ngay bëgg a def ci moom li nekk ci yow. barke Serigne Saliou Ba yaa am jom yaa baax yaa ngor benn jikko nga am mais am na ñoo xamante ne li nga am bu ñu doon xam bu ñu def. Eh, eh, wax dëgg mooy wax dama ne la dama ne la li nga am nii yàlla def la ko am may la pouvoir bi xoolal man sama yaay. mosoo koo gis wala benn yoon boobu kër gi la ñëw sama papa mosoo ko xool li may def. xool li ngay defal ñëpp barke sëñ bi yàlla na yàlla defal jàmm maa ngi ñaan yàlla yàlla bu dee mooy yàlla na ma ko wan si sa album bii di génn mu def la xoolal nga am di ñëpp bëgg di nekk ci xelu nit ñi waaw yàlla na ma wan ne foofu mooy yàlla nga am nga am di ko